impact buñ ci gis moy gis nañ ne que masse salariale bi euh dafa dafa teunk tënk euh, kat mom wala sax teunk état parce que bo xolé critère UEMOA bi manam critère de convergence dañ ne manam luñuy am ci recette fiscale ak boko mengalé ak euh, masse salariale walu dépasser 35% manam témir bo jël euh boo ben fuk ak juróom yi waruñu ko dépasser wala 35% cinq pour cent fanweer ak ko dépasser donc euh, mais gis nañ ne que buñ ko defulé impact eh, impact bi am moy duñu état de recruter dootul mën recruter té buñu ñu recruter wul maanaam di nga gis ben nit dina def liggéey juróom be fukki nit té lolu lu muy indi moy ay jafe-jafe bari ci ci nit ki ci bopom mais aussi day indi problème manam performance ci liggéeyam té gis nañ également euh, ñin ci biir lolu société civile ak kuréel yi ñu ngank yépp dañuy laaj état ñu taxaw ci wàll lu ñu ne transparence maanaam lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy saytu ñu mun mu nekk euh, loo xamante ne dañ koy lu mucc ayib la lu leer la ba pare askan bi mun ci gis boppam donc loolu dañuy exiger état aussi mu kii ko ndaxte bu fekkente ne ressource su ñu am doyul ba pare war euh, laal maanaam laalu communauté population vulnérable yi loolu aussi jafe-jafe lay indi loo tax dañ ne état bu ñu mobiliser ressource nañ fexe ba redistribution bi mu mun a jaar yoon su ko defee ñi ci war a jot ñu jot ci su ko defee aussi recrutement maintenant dañuy wax tamit ni euh, conditionnalité FMI yi ak banque mooy war nañ ko xoolaat ndaxte dañoo gis ni que depuis suñu état yi ñi ñi commencé dugg ci euh, conditionnalité FMI ak banque mondiale gis nañ ni que ay jafe-jafe yu mag la ñu am naam sax am na ñoo xam ne ñu ngi siy def jéego mais liñ ci seetlu mooy safaan bee gën a bëri maanaam suñ pays ba léegi boo xoolee maanaam pays moins avancé la ba léegi ñu ngi ci catégorie yooyu lu loolu lu muy firnde mooy war nañ xoolaat suñ stratégie est-ce que ànd suñu suñu ànd àndandoo ak euh, FMI bi est-ce que duñu xoolaat également ñi bañ a joxe lépp ñu xool aussi fu ñuy war a yem ak yenn yi yenn yi aussi ñu déglu askan bi déglu leen ci seen bëgg-bëgg ñu mën a aussi investir ci secteur yoo xamante ne dina mën a indi euh, croissance te bu indi croissance ñu mën a aussi redistribuer mu mën a laal population yi rawatina jigéen ñoo xamante ne ñu ngi ci euh, gox-goxaan yi sonn pour mën a jot ci service public yi. transparence également maanaam reddition des comptes maanaam aussi Euh, jël na ko ci engagement mu mën ko jëfee nu mu waree ba pare aussi mu mun a layoo ak nit ñi wax leen fii laa lii laa jël lii laa fii laa ko dugal ak yooyu te loolu day am solo trop ñi xam suñu ressource euh, fii la jóge fii lañ ko dugal ba pare résultat bii la am loolu dañ ciy taxaw lu am solo beneen bi tamit mooy wàllu état de droit parce que pour ñun état de droit mooy fexe ba euh, maanaam askan bu ne joué état joué rôle am justice joué rôle journaliste joué ku nekk mën a jouer ci état boo xam ne ba pare aussi ak ak yelleef ñu mën ko respecter parce que tant que respecté wuñu ak ak yelleef nit ki du ñu du ñu mën a am état de droit te état de droit bu salfaañee rek daanaka suñu réew moom ñu ngi ci suuf donc loolu dafa am solo loo tax chaque fois si suñuy liggéey euh, dañuy ñaax nguur ñi la dëmb ni nga fii ministère de la famille ak ministère de la santé wax leen ni ni mbirum euh, budget dafa doon lu am solo. il faut que ñu bàyyi xel ndaxte bu fekkente ne dugal ñu fu ñu war a dugal rek suñu suñu suñu taux d'endettement bi day gën a jóg te bu jógee euh, maanaam ñii ñoo xamante ne dañu leb xaalis dañu bor bi il faut que ñu fay ko te ñoom duñu baal bu ñu faylee aussi problème indi dañu nekk cumul déficit teg boo nekkee ci cumul déficit maanaam sa dette day nekk day day day insoutenable et bu fekkee am nga insoutenabilité de la dette loolu mooy souvent sa économie day nërmelu lu ñu gis mooy euh, boo ko méngalee ak aussi conditionnalité dañuy gis ne que maanaam euh, maanaam euh, salaire yi mënul yokk surtout seen seen secteur public parce que lu tax mu war a mën a mën a mën a du yokk parce que FMI moo moo tënk suñu état ci loolu donc da ngay gis ne que fu ñu wara joxé allocation ak i demee noonu wañ chaque année ñi gis aussi tamit ñi gëna a lu ñuy wax secteur privé manam ñi wax ne état du recruter mais nañ bàyyi secteur privé de recruter té secteur privé public bu recruter wul duñu am jàngalekat kat duñu am ay médecins duñu am ay ki donc ñun suñu taxaway moy nañ fexe bé secteur public ñi délo ko état mu jël ko en charge parce que lolu bok ñun pour ñun bok na ci fonction régalienne fonction régalienne état donc tant que secteur privé privé euh, public ñu ngi koy bayé te état du ci rôle donc ba maîtriser.